bisimilah rahmaani rahiim merci beaucoup Samba Ndiaye euh, bi ñu sante yàlla julli ci yonent bi chef am vous m'excuserez avec la présence de la maman ak ñi fi teew yëpp dama bëggoon wax peut olof parce que c'est c'est vraiment convivial et familial donc ma commencé nuyu ñëpp jéggalu ñëpp peut-être ci tardement yi bu amee mais bu ñu sañoon du am euh, nuyoo bi ma commencé également ci Abdou Aziz fu ma dajeeg moom dama koy wax parce que yàlla dogal na seen kër laa dale alxuraan kër papaam eh, El Hadj Bassirou Diop ma ko papaam di jarbaatu El Hadj Malick astafurlah jarbaatu El Hadj Abdou Aziz falaa jàngee alxuraan may nekk xale peut-être trois ans wala quatre ans donc heure bu ma ko gisee dama koy considérer comme suma sëriñu daara bi ma njëkk a jàngal ci àdduna donc vraiment Aziz maa lay sant di la gërëm eh, xam ni vraiment maa ngi lay jox sa wàccuwaay di nuyu également suñu yaay ji toog parce que vraiment j'ai taquiné tout à l'heure en disant que elle est dëgg la parce que j'ai un ami de 30 Lucien Sambaz même 15 ans laa ko xam ni bokk lycée Blaise Diagne doon un ami intime ba léegi on a gardé le contact c'est un cousin en rama vraiment loolu également bu amee day indi proximité boo xam ne dès que je suis venu à ma xam ne rama séq naag loolu bët boobu laa koy xoolee parce que Lucien xam nga ki nga bokkal seconde ba tax na vraiment euh, bët boobu laa koy xoolee bëtu cousine donc sœur fi ma ko Lucien waroon mën a féete euh, bët boobu daal laa koy xoolee. remercier également journalistes yi fi nekk yëpp àdduna bi léegi kenn moomatul kenn ku yabu rek di def lu baax parce que boo ko defee lu ci jóge comme dividende yaa koy récolter les autres kenn moomu leen bu leen neexee ñu nice nice rek mais comme disent les gens kenn mënul luy ay nit. Mhm. mën nga louer chaise mën nga louer matériel mais louer nit ñëw leen amul fenn donc bu lii amee également man dama jàpp ni devoir la ñun autorité administrative ñu ñëw teew parce que suñu diggante ak presse day diggante bu xaw a ratax boo xam ni dina am quelque fois de kii mais liggéey bi yëpp lan la mais jëmale réew mi kanam euh, rama dañuy waxtaan régulièrement yenn saa yi même bi ma nekkee ndax dama naan déglu Walfadjri woo ko critiquer que quelque fois mu woo ma critiquer le bon sens mais c'est le professionnalisme parce que nit day am loo xam ne da lay tënk dina def yenn liggéey yoo xam ne dangay ngay sentir que professionnel la bu koy def xool ni kii sama frère la kii sama xarit la kii sama leneen la day def liggéeyam ci àqulaay taalaam et loolu yaakaar naa c'est extrêmement important lii am tey nag peut-être euh, yàlla da koy doog a dogal mais man même à Saint-Louis ak ñeneen ñi fi de yëpp dama ko doon naan ko mais Rama c'est vrai que tu as parce que nit ku nekk boo toogee étape. yaa moo mon grand Cheikh Falla qui veut pas quitter Thiès da ngay ñaan yàlla ah demaat beneen kii relever yeneen défi parce que loolu c'est important relever yeneen défi mooy lan dem feneen ñu découvrir la loolu bokkul ak wërsëg dara mais je crois que ni ko doyen Pape Moussé waxee muy moom muy ñeneen def nañ seen temps c'est pas qu'il faut aller vers Dakar Dakar n'est pas un une fin en soi mais découvrir autre chose amaat leneen je crois que boo toogee ba say kilifa xalaat ni war nañ la jëlee foofu yóbbu la feneen foo xam jàpp nañ ni promotion la mais sant yàlla ak ñaanal la ñaan googu nag je crois que ñëpp loolu lañ la yéene yàlla lafal la cat fi nga xam ne fa ngay dem lépp loo fa yaakaar loo fa ragal suñu borom jàppale la ba doo ko gis moo am yeneen succès et loolu à travers Rama c'est pas seulement l'ensemble des des de la presse ici je le disais tout le temps dama nekk Saint-Louis bi ma ñëwee di dajeek ñoom waxtaan ñu ba ma leen moi Thiès m'a marqué parce que ce premier poste bi nga def dans lay marqué li ma ci gën a marqué c' est les relations avec avec les gens professionnalisme bi ñu am sa du tee du chaque jour lañ fiy nekk pour di la wax lu la neex et cetera ils font leur mais en toute responsabilité en toute responsabilité parce que presse dafa am solo dafa am solo mais dafa dangereux parce que li ci danger mu mel ni comme pouvoir la rek c' est un pouvoir moi mon père me disait toujours attention boo yoree kattan kattan gi tout seulement préfet qui décide ou le procureur mais c' est même celui koo xam ni li ngay bind tey wala nga koy wax boo ko waxee six millions sept millions dix millions sénégalais mën nañ ko gi fit na mën na ci je crois que li ngay def toujours na doon lu responsable et macha allah fii loolu lañ gis à Thiès bari na fa yoo xam ne peut-être nit ñi dañ ko yëg dëgg ci seen tànk c'est pas que dañuy ndëbal kenn dara mais dañuy xool di ko différer xam période bi nga wax seen métier la yéen a gën a xam mais en tout état je considère que ñi nga xam ne ñoo nekk Thiès macha allah c'est pas des fleurs que nous ni ko waxee kon nag bi ngeen di liggéey yàlla na leen ci yàlla defal ku nekk liñ ci yaakaar yaa ko xam yàlla defal la ko ba mu weesu sa jot lii déplacement bi euh, l'adjoint au gouverneur Ibrahima moom moo wax naan ma euh, est-ce que est-ce que je devrais pas venir ma ne ko bon on va essayer de faire l'effort ñëw mais jaadu la parce que ñun bu ñu xewlee da ngeen di dangeen da ngeen di ñëw def effort bi baa loolu nag mooy koo xam ne lu ñu la defal rek yaakaar yi yaa ko yeewoo mais bu keneen kii doo xalaat delloo ko donc ñëw bi c'est tout à fait naturel vraiment euh, sant ñëpp gërëm ñëpp maman également ñu masawu la parce que li ñuy def nii c'est comme le journalisme événement day xam nga taal sa oto dem sa yoon fàtte nga sa jabar fàtte nga sa yaay fàtte nga keneen yaa ngi daw dang dang dang c'est un service public kon nag bu xew-xew yu mel ni amee dañ leen di ñaan ngeen masawu ci ñàkk présence bi ñaanal leen nga xam ni yéen di ngeen leen soxla mais ku réew mi soxla sa njaboot soxla la yaakaar naa njaboot gi mooy nangu ñàkk réew mi liggéey lii ñuy def nii ci liggéey bi mais en réalité c'est pour le Sénégal. avancé yi ñu am sur le plan démocratique. mais lu ko indi c'est la presse macha allah sa bu ñu nee presse c'est la presse publique peut-être la presse publique man dem naa États-Unis toog benn kii ñu naan la mais génn comment se fait lii yëpp di génn nit ñi di ko xam mais day loo xam ni dafa doon benn capital boo xam ni dafa impacté ci euh, envergure Sénégal ak prestige yu Sénégal sa loolu lan la mais c'est pas peut-être c'est les directions générales mais ñi nekk à la base dans les stations régionales. ñoom ñooy def liggéey boobu muy génn ba dem ci kaw en tout cas man félicité ko ñaanal ko ñaan yàlla ni lépp li nga xam ne moom la yaakaar ci lu rafet yàlla may ko ba defal ëppal ko lu lu lu lu may ko lu ëpp njortam gën a tàllal loxo tous ceux qui sont là muy euh, ki nga xam ne mooy successeur am parce que administration lan lañ fi nekkee c'est juste coordination bërki démb dama génn dajeek sañ à minuit une heure bon c'est vrai que chacun a ses défauts on ne parle pas daje moom mais préfet tu en opération dans la nuit man ko gis nga ne man de toujours sur le terrain. amoon na carte nañ ànd. non xaw ma dafa amoon na carte man ma nañ ànd. on l'a mis dans équipe ñu ànd def liggéey ba mu jeex c'est parce que ñun dañ ko gëm bon vraiment on est disposé dama koy réaffirmer na day jafe doo mën a anticiper parce que day niroog euh, voyez-moi voyez-moi ku nekk ak sa style mais lépp loo xam ne ci suñu loxo la tegu euh, journalistes yi soxla ko. je réaffirme notre disponibilité à échanger sa muy doon lu neutre parce que nit ñi kenn moomatu leen sa man je respecte tellement les journalistes que gëm naa ne kenn mun leen manipuler kenn mënu leen manipuler moo tax quelquefois da dangay bëgg def sax tu ne donnes information l'information parce que quelquefois loolu lay njët ñu mais lu ñu xam daal lu ñu mën loo xam ni pour suñu réew jëm kanam mm. parce que important on a tout ce qu'il pour que ce pays décolle je crois que li ci rek mooy nangoo liggéey jëmale en tout cas Rama euh, réaffirmer la suñu amitié suñu fraternité loolu également di nga ci kontaan loolu ñu def la même chose avec ton successeur je vois Mourad la est là complètement les yeux xam naa ni il est orphelin un peu mais nii la àdduna quoi c'est des départs et des arrivées ñaan yàlla ni nga juboo woon ak Rama yàlla gën la boole bu fekkee tu es toujours là avec son successeur pour que ngeen relever de nouveaux défis sant ñëpp gërëm ñëpp vraiment wasalaam. merci beaucoup